tànk bi dafa xaw a dafa déchiré dafa déchiré quoi waaw keneen ki tànkam dafa damm bañ doon dañ ko dañ ko mujjee dagg quoi. ñoom ñëpp ñu mu ci biir waaw mu ci biir waaw mais ki nag comme ki ki garawul du noonu yëpp après ko moom libéré nañ ko quoi kii moom day ñibbi quoi ak ah, kii libéré nañ ko waaw. waaw ñu jël ko rek comme moom si accident bi la bokkoon ñu bàyyi ko mu wax téléphone moom geen di seen noonu donc mu bandage euh, li nga xamante rek moom moo di tànk bi alors euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. ginnaaw ba ma la massawoo bu baax a baax a baax euh, wax dëgg yàlla Sénégal yëpp a ngi lay seetaan si Sénégal set yow nga bokk si ñenn ñoo xamante ne bokkoon nañ si accident bi euh, ma bëggoon rek nga présenté wax sa tur ak sa sant ak fan nga bàyyeekoo si ban bus nga duggoon euh, nga wax ñu rek accident bi nu mu demee woon ginnaaw ba ma la massawoo en tout cas di la ñaanal yàlla may la tan ak wér gu yaram. man sama tur Abdoulaye Abdoulaye Dambélé waaye may jógee si Tamba bi car macha bi man maa toog si ginnaaw. monsieur damaa yore sama téléphone maa si connecté monsieur damaa dëgg jékki-jékki gaa yi ma def pono bi mu toj pono bi mu toj rek gaa yi yëpp ñuy yuux. ak bis bi nga duggoon la foofu mooy bi pono bi tojoon. bis bi ma dugg pono bi moo toj bis mu jógee Tamba pono boobu moo toj fekk si bis bale waaw fekkee man dama toog ci versage bi ma jóg rek versage benn versage dàmm tof sama sama tànk bi mu gaañ sama tànk bi après man sax yëguma sax parce que damaa kii nii sax après mu génn loolu yëpp gisu dégguma dama xool si suuf rek ma gis sama deret muy génn après sama yaram daw na ma gis gars yi yëpp yeneen ñi tëdd mënuñu jóg yeneen dee na ma gis yéemal ne sa gars dama fàtte man sama bopp parce que si géej gi dee man sama xol loolu la dem monsieur nit soo déplacé si ga si kër gi soo déplacé kër gi mu ne da ut liggéey dem foofu bàyyi si si jabar bàyyi foofu si papa baay foofu si yaay yaay ñi dëgg gaay kooku dee na loolu dafa yéeme trop loolu dafa yéeme man sama bos mi nii kooku sama damaa sante suñu borom. si ba ngay wala yow kese yaa àndoon. damaa sama benn bor booy kooku noonu tànkam damm na kooku tànkam damm na man. moom yéen a dendoon. waaw ñu ñoo bokk benn dëkk. yéen a fi ngeen toogoon si biir si biir bus. déedéet bokkuñu benn place parce que moom si digg la nekk man maa si ginnaaw waaw parce que man dama gën ñëw si hopital fii ma recherché moom mu woo ko gendarme moo jël téléphone bi après ma dem si ki hôpital bi mu wóor ko mu gis ko waaw mu ne ah, affaire bi lumu dem man ke sama tànk bi gars yi damm na sama tànk bi mu ne ah loolu doon doy waar. mu ne yow man a ah, man kay sama tànk bi kay moom dafa xotteeku rek waaw loolu. mën nañoo gis tànk bi ndax gaañu gaañu bi garaawul ñu eh, donc voilà mu ngi noonu ngeen gis mu bandage li nga xamante ni moom mooy moom mooy tànk bi eh, bokk si accident bi nga xamante ne rek eh, moom moo am si six kilos donc oto bi ndax da daw vitesse oto bi nga xamante ne moom la moom nga dugg. oto bi oto bi waa dëgg la oto bi mooy daw. parce que oto bi muy daaw boo kii oto bi muy balancer nii soo gisee bis muy daaw balancer rek fekk daw daw daw bi daw na trop waaw fekk muy bis bi dawul du li ñu gaañ ne du du def noonu waaw parce que yeneen suñu chauffeur sax dee naa seen ñaari apprenti waaw loolu yëpp waaw ñaari apprenti dee naa chauffeur bi bis bale chauffeur bi dee na waaw man loolu laay xalaat sama gars yi mu xool sama bopp mu xool si yaay ñi tëdd yeneen ñi yóog si tuur yaay waaw man après mu xool sama tànk bi loolu yëpp sama tànk loolu méttu ma waaw loolu méttu man gars yi ñi dee rek moom sama xel loolu la demee gars waaw parce bi man depuis ma jur musuma gis accident bi mu mel nii waaw génn accident yi de accident mu mel nii gisuma ko waaw fi na nii daal euh, ñu bàyyi rek xam naa sa tànk bi dafay metti en tout cas ñu ngi lay ñaanal nga tan ak amin amin jërëjëf ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax euh, mbokk ñi seetaan si Sénégal set euh, comme ni ngeen ko gisee noonu mu nekk koo xamante ni moom tamit si accident bi la bokkoon daanaka métti na trop métti na trop ngeen ko déggee noonu bus bi nga xamante ni bi nga xamante ni moom la moom la duggoon euh, daanaka bus boobu la la la pono bi toj euh, daal di rek euh, daal di toj daal di saaraan alors jëme si li nga xamante ni moom mooy si li nga xamante ni rek donc dal si beneen oto bi déjà dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax jëm si li nga xamante rek moom mooy vitesse bi nga xamante ni bus bi bus bi moom la doon daw mu nekk loo xamante ni en tout cas euh, yéeme na lool waaye tamit euh, doy na waar en tout cas di ko ñaanal yàlla euh, moom mi nga xamante ni rek yàlla def na ne amul benn jafe-jafe lu dul si tànk bi rek donc en tout cas di ko di ko ñaanal yàlla rek mu am tan bu baax a baax a baax metti na trop wax dëgg yàlla métti na. métti na trop franchement métti na euh, moom mi nga xamante ni si accident bi la bokk euh, moom mi nga xamante ni si accident bi la bokk en tout cas ñu ngi koy ñaanal yàlla daal mu mu mu tane bu bu baax a baax euh, jëmale ko nag donc jëmale ko si li nga xamante ni mooy si bile bile accident ba tey ñu ñu dem fas jël ñi nga xamante ni donc ñu fas yéene ànd ak yéen si liggéey bi en direct jël euh, suñu euh, ay kilifa yoo xamante ni ñoom tamit wax dëgg yàlla ñëw nañ taxaw si euh, alors si buntu hôpital bi comme ni ngeen ko gisee noonu vraiment c'est c'est vraiment triste en tout cas salaamaaleykum Euh, Papa maa ngi lay nuyu ginnaaw ba ma la masoo jaale également askanu Sénégal yëpp si li jot xew démb euh, tey sa taxawaay si buntu hôpital bi euh, lan moo nekk sa kàddu ginnaaw ba ma la nuyoo ba nag. Ah, alhamdulilah ah ah loolu sant yàlla di naxarlu tissu rek ah tissu na moom Sénégal yëpp a ko bokk ah di ma ko masoo ñëpp coono rek ndax doomu aadama yëpp ci sonn kenn ku nekk rek yaakaar nga ne yaa moom. waaw lu mu la sori sori rek sa xel mu ngi ci di ñaanal way dawli rek yàlla yërëm leen jégal leen jégal mboolem ñu ñuy fekki ah te di yàlla yéen mu gëj fi nag ñaan yàlla yéen mu gëj fi waaw maanaam daal mbir mi daal kenn mënu ko wax kenn mënu wax ndax doy na waar trop doy na waar trop waaw toujours toujours man ama benn mbokk bu ci bokk wax dëgg yàlla waaw ama benn mbokk bu ci bokk wax dëgg yàlla ah dina yàlla rek yàlla xare leen àjjana ndax daanaka man man mën naa wax sax ndax ay jullit tënk ci mhm. kon mel na ni mbokk ci kon waaw ñëpp ay bokk lañ waaw daal loolu daal laa ci amoon lu may wax waaw. baax na. ñu